seen euh, cosaan la bokk su dee mun nañ ko waxee noonu ngir ñëwaat nag si yooyu coup d'état ak euh, contexte yi nga xam ni moom la amee woon ni ki noonu tamit li koy euh, favoriser maanaam li tax yooyu mbir di fa xew dañuy dalal Jonas Bassène suñu naataango la taskatu xibaar xelam tamit màcc si mbirum Gambie ak Guinée su fekkente ni noonu la Jonas ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la si émission Demb ak Tay maa ngi leen di fay soxna si maa ngi leen fay bu baax na mhm. ngi sant yàlla ni ma ko waxee kon euh, dañuy euh, bëgg a waxtaan ak yow ci mbirum Guinée-Bissau alors euh, ngir tàmbali yan coup d'état moo mës a am ci moomu la réew bala ñuy ñëw ci contexte yi. waaw jërëjëf Guinée-Bissau nag buñ ko xayma coup d'état ndax bu ñu wax coup d'état mooy lu réussir ah. mhm. am na yu bëri certes waaye bu ñu xaymaa ba léegi ñeenti ñoo fa mës a am hmm. ci ci dëkk boobu donc euh, am na coup d'état mille neuf cent quatre-vingt am na bi euh, euh, nga xam ne bi nga xam ne mooy Ninu Viera moo ko defoon ak bi nga xam ne mooy quatre-vingt-dix-neuf bi nga xam ne Ansoumana Mané nekkoon chef d'état-major général des armées moom moo ko def ak deux mille trois deux mille trois nga xam ne dañoo daaneloon kii Kumba Yàlla hmm. Kumba Yàlla moom président la woon hmm. bu mujj bi nag mooy deux mille deux mille douze bi nag coup d'état euh, boobu moo taxoon sax ba CEDEAO daal di fa yónni ay ay ay takk der. ñu hmm. a andi stabilité ci réew moomu la. Hmm. boobu bu ñu koy fàttaliku ki nga xam ne moom mooy Carlos euh, Gomes Junior moom la ñu daaneloon nguuram te euh, ki ko defoon li ñu doon jàpp ne ñoom ñoo ko def mooy Antonio Ndiaye nga xam ne tey dañ koo génnee ci armée bi. mais pour benn officier la woon ci biir armée bi ak ki nga xam ni mooy euh, euh, <clears throat> José Américo Bubanachuk nga xam ne jàppoon nañ ko 2013 tëj ko États-Unis mm-hmm. balaa ñu koy libéré 2016 euh, te mu ngi dund tey Guinée-Bissau mm-hmm. donc ñooñu xam ni ñoom ñoo daaneloon kii di nguuru kii di nguuru daanaka damay wax ni Euh, Carlos Gomes Junior voilà. Mhm. Euh, te euh, José Américo Bubo Nacucco moomu coup d'état bu barki démb bi tudd nañ ko ci également. waaw moom turam dañ ko ci tudd ñu koy tudd. waaye boo gisee ñu koy tudd sax waa ji dafa doon fi nga xam ne dañ ko jàppoon te ñu ngi ko jàppale ndaxte dafa doon lëkkaloo ak narcotrafiquant yi nga xam ne ñoo nekk colonne bi. Mhm. ci mbirum drogue bi. ñu yëngu ci mbirum drogue ñooñu gis xam nga ñooñu dëkk bi nga xam ne euh, dafa nekk instabilité boobu leen di gënal ñu ñëw di fa def seen i business maanaam di fa def trafic de drogue te Guinée boo ko xoolee réew mi nga xam ne la euh, dafa dafa bëri ay ay ay diwaanam yi nga xam ne ci ndox mi lañ hmm. ndax boo jëlee huit cent huit huit huit mille cent vingt kilomètres carrés ci ndox la nekk donc lu ñu am li nga xam ne mooy terre ferme maanaam mooy suuf fu ñu mën a dëkk mooy vingt huit mille euh, kilomètres carrés la donc bëri na ay île yooyu sax ñoo ëpp daanaka dëkk bi nga xam ne mooy Belgique kon dëkk bu yaatu le léegi ci île yi dëkk bu mel ni Guinée amul pouvoir amul pouvoir pour mën a contrôler maanaam euh, suuf soosu noonu am armée bu dëgër wala ay police bu dëgër mën a sécuriser dëkk boobu loolu am ko tax na narcotrafiquants yi tànn ko mais bu ñu ko tànnee dañuy collaborer ak ki nga xam ne moom mooy euh, bugg nag naan ko José. contre amiral la. voilà contre amiral la marine bi la yoroon kooku mu ngi ci ndox mi. Mhm. donc daan na lëkkaloo ak ñoom. ak ki nga xam ne mooy Antoine Ndiaye nga xam ne bi euh, euh, Mballo ñëwee président Umaro Sissoko Mballo mhm. dafa tekki ndombal tànkam ne ko demal toog te tey fu ñu toll ni américains yi dañoo lancé mandat d'arrêt pour jéem ko jàpp ndax dañu gis ni dafa bokkoon ci dafa nekkoon complice mhm. ñi nga xam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy narcotrafiquants yooyu ak parquet yi mooy forces armées révolutionnaires de colonne nga xam ne dañu doon ñoom it def trafic de drogue pour mën a jënd ay ak ñi nga xam ne mooy gouvernement colombien te nekk Amérique latine. Mhm. donc euh, loolu moom mooy officier yi nga xam ne toujours dañuy dem mooy comme ni ma leen koy waxee mooy dañuy génn duñu nekk ci bi mais dañuy nekk euh, dans les alentours même boo leen dàqee dañuy am toujours influence. Mhm. ndax dafa am ñi nga xam ne. seeni nit ñoo fay des mhm. waaw seeni nit ñoo fay des. donc heure bu ne mën nañ yëngal ñu mel. mais bu ñu peut-être demee tout tuuti ci contexte jéem a xuus tuuti ci contexte bi bi passé bu barki démb xam nga li am ni euh, kii di euh, euh, chef d'état-major général des armées bi nga xam ne dañuy wax ni moom dafa faatu jéemoon na ko rappeler wax ko gouvernement bi ah am na coup d'état waaye loolu lu mu mujj mooy gars yi dañ ko weddi ne moom daal dafa am intention yëngal réew bi ki ko weddi woon sax moom mooy porte-parole gouvernement bi ministre du nekk Fernando Vaz kooku bañoon na li ñu mais bi mu faatoo barki dem ndax dañ ko demoon faj États-Unis mu faatu gis nañ ni rapidement loolu am kon du dañ ko yàgg préparé mhm. donc loolu moom mooy situation bu dem mhm. alors euh, wax nga ne am na ay coup d'état réussi mooy yi nga lim léegi mais am na yoo xam ni jéem nañ ko doonte sottiwul euh, tentative de coup d'état yooyu aussi si si ñan la woon ak lana doonoon peut-être contexte bi waaw tentative de coup d'état yi nga xam ne jéem nañ ko réussirul bu dem bi ci la bokk waaye am na yi nga xam ne bon bu bu ñuy jël ba quatre vingt dix huit. Hmm. quatre vingt dix huit euh, bu koy jël euh, dafa doon ki nga xam ne mooy Ansoumana Magne première tentative bi quatre vingt dix huit ba tax xeex bi dafa guddoon sax. guddoon hmm. na loolu ba quatre vingt dix la doog a réussir. Hmm. donc lu tax lu ñu doon wax mooy accusation boobu mooy dañuy waxoon jamono yi Abdou Diouf a nekkoon ci nguur gi ci Sénégal ñu doon wax ni dafa am ay armes yoo xam ne euh, gouvernement. Guinée Bissau mu ngi koy jagleel ñi nga xam ne ñoo waa MFDC te euh, ku ñu si jéemoon gis ñu ku ñu si jéemoon ciblé moom mooy chef d'état-major général des armées ma loolu taxoon na mu am coow diggante am a président Nino Vera waaye ci xeex bu métti googu noonu Nino Vera dafa daw dafa daw 1999 après ci la mucc daanu daal di dem toog Portugal mm-hmm. mu tooge Portugal xeex bi daal di gudd gudd ba finalement mu mujj jeex et ñu def élection 2000 me rappelle bien. Mm-hmm. Euh, ki nga xam ne mooy Kumba yàlla daal di ñëw. mais mm-hmm. yàlla bi mu ñëwee toog ci nguur gi nag ñi amoon nañ espoir ndaxte c' était un dañ ko doon gisee comme ki nga xam ne mooy ab seen Abdoulaye Wade ndax opposition. Mm-hmm. la yàgg nekk. bi ko ko dàqee waaw dafa yàgg opposé bi ñu ko dàqee ci PAIGC nga xam ne moo nekkoon parti unique en mille neuf cent euh, quatre vingt neuf mu lañ ko dàq PAIGC mu daal di opposé wu opposé wu ba dem élection euh, ak PRS. Euh, parti rénovation sociale daal di gagné jël nguur gi mais bu mu jëlee nguur gi deful dara deful dara ci réew mi wax ji ëppoon ñi ñee ngi grève xale yi bëgg a jàng am situation bu baax enseignants yi tamit di laaj ndax mën a am condition de vie bu baax seen salaire ñu rénové ko waaye da leen doon wax bu leen neexee ngeen man daal am naa ay lijaas. Hmm. loolu du ki nga xam ne mooy responsable ba tax na. bi mu tàngee ba gisaat nañ ni dafa doon jël ñi nga xam ne ñooy. ay euh, mbokkam yi mm. nga xam ne dañoo jegante loolu. balante yi balante la daal di leen daa di leen di favoriser di leen di jox plus euh, d'opportunité. Mm-hmm. loolu nekk ci gars yi moo tax bi ñu ko coup d'état ñi nga xam ne ñoom ñooy institution internationale yi moo xam ndax CEDEAO wala euh, communauté des pays langue portugaise. ñoo ñëpp kenn waxu ci kenn yuy yàbb ci lu mel te amul sax protestation sociale amul manifestation pour contre li nga xam ne ndax dañu gis moom nu mu doon yoree nguur bi baax moom nag biñ ko daanelee amul dret dara dara tuuru ko comme dret te lu tax sax gars gën ko mere mooy deux de deux dafa tasoon li nga xam ne mooy parlement te mënu mënu loon sax organiser élection donc kumba yàlla après ci lañ ko la ñu jeexal nguuram euh, ba ñu ñëw bi deux mille tentative boobu tamit mu antuwul nga xam ne ñun wax naa ko sànq mooy Antonio Ndiaye ak bu mën a cut ñoom ñoo ko jéemoon def dañu jàppoon sax ki nga xam ne mooy José Zamorano Induta nga xam ne mooy chef d' état général des armées ñi daal di ko téye ki nga xam ne mooy premier ministre Carlo Gomes loolu tamit jàllul mais 2012 lañu gis ni coup d'état jàll boobu réussir na parce que kii di Carlos Gomes Junior dañ koy mujj daane laat mhm. mu daal daw sax toog si ambassade Portugal yàggoon na fa ba mhm. tout dernièrement dama siège Nations Unies sax laay mhm. lañ ko toxal génne ko ci siège boobu noonu mu dem nga xam ne ko ñu jógew na fa nekkatu daanaka ay quelques institutions ñoo fa nekk mhm. donc Guinée pays bi nga xam ne comme ni nga ko waxee dafa am tradition coup d'état mhm. mais loolu nag du hasard mhm. xam nga bu fekkee da nga nekk un pays lusophone euh, ba pare euh, sa indépendance bi nga koy jël ci xeex nga ko jëlee yaa ngi tàmbale xeex euh, ay années soixante treize déjà mille neuf cent cinquante neuf parce que cinquante neuf déjà amoon na grève bi nga xam ne moom mooy port de Bissau ouvrier don doon grève pour am meilleure condition de travail gars yi di leen fay bu baax waaye eh, demande yooyu colon portugais bi dafa bàyyoone woon daal di fa faat pratiquement cinquante euh, Guinée Bissau Guinée mhm. donc euh, sans blessé loolu la ñuy wax comme bilan mais ëpp na mhm. xam nga rek euh, colonisation bi moom am na réalité yu bëri gën defe ko waaw mhm. donc situation boobu taxoon na Guinée révolté daal di regroupé wu dem dans les zones rurales sensibiliser population bi ki nga xam ne ki ko jiite woon mooy Amilcar Cabral ki nekk seen père fondateur maanaam te moom sax fekkewul daanaka bi ñuy jël seen indépendance par la suite ndax dañ ko faatoon mais <clears throat> kooku daal di jiite xeex bi ñu xeex mais portugais ils étaient obligés ñu bàyyi ndax période boobu contexte boobu bu koy xool dans les années soixante dix ba ñu ñëw ba soixante treize Portugal nekkoon ci difficulté tamit ndaxte ki nga xam ne mooy Antonio Salazar moo nekkoon au pouvoir mhm. dictateur bu bu bon la kooku armée bi sonnoon na trop continuer di xeex dans les colonies Angola mi ngi yëngatu Mozambique mi ngi yëngatu euh, Guinée-Bissau ak Cap-Vert ndax benn benn benn pont lañ defoon mi ngi yëngatu ñu daal di décider ni dañuy retirer soldats yi dans les zones de colonie ndax ñu mën a mais bi ñu daaneelee Salazar moo tax ñu daal di cédé mhm. retirer seen soldats yi Euh, loolu soixante-treize la am soixante-quatorze Guinée daal di jël indépendance mhm. donc ci xeex la ko jël xeex boobu nag tax na préparé wu ñu boo ko xoolee ba xool ban genre état la ñu am mm. ban genre état la Guinée war a amul ñu tamit gunge bi si war mais accompagnement bi amul amul xam nga boo defee sevrage brutal rek mhm. daa mel ni benn ndaw nga jël nampal ko si yàgg daal di ko faral mhm. donc kii bon boobu moo nekk ni ils ont des difficultés après économique loolu en en quatre-vingt la mhm. euh, ki nga xam ne mooy Luis Cabral nekk euh, doomu bàyyi Amilcar Cabral ndax rayoon nañ Amilcar Cabral kookoo jël nguur mhm. bu mu jëlee nguur bi nekk na fa euh, jéem a li nga xam ne mooy économie bi waaye demul ndax même bu fekkee Guinée-Bissau dafa teel a bàbbeeku bàyyi ñi nga xam ne moom mooy bloc soviétique yi parce mm-hmm. nañ ci la guerre froide mm-hmm. nekkoon na ba ay quatre-vingt-dix Guinée Bissau jéemoon na génn ci li nga xam ne moom mooy bloc euh, euh, soviétique jéem en même temps di flirter ak américains yi mooy capitaliste yi mm-hmm. mais loolu taxul euh, ba tey mu relevé économique mu loolu indi problème ci réew mi yaa ngi gisatuñu seen bopp te tamit ñu gisoon ni dafa amoon benn constitution bu bees li nga xam ne ki nga xam ne mooy Louis Cabral hmm. daanoon na ko proposé et constitution boobu dafa joxoon trop doole ñi nga xam ne mooy ñi ñu nekkoon Cap Vert hmm. Cap Vert ñuñu vert am na trop gars yi daal di ko coup d'état kii ko coup hmm. d'état mooy mooy euh, euh, José ñu koy wax Nino Vieira nekk João Bernardo Vieira voilà kooku daal di ko coup d'état toog loolu ñu nekk quatre vingt cinq nekk euh, nekk quatre vingt bi ñu toogee ba quatre-vingt-cinq mu am tentative tamit am na tentative quatre-vingt-cinq ñi dañ koy mm-hmm. tentative de coup d'état boobu nag euh, ki nga xam ne euh, benn benn tey après moom dafa mujj nekk sax benn nit nit ku am doole ci ci réew mi mm-hmm. euh, nekkoon fa chef d'état-major général des armées bu mu toogee bu ñu ko ci ninu Viera bi mu toogee daf ko jàpp di ko toroxal parce que mm-hmm. neewoon ni kooku dafa moom moo def coup d'état donc loolu ki nga xam ñu ngi koy wooyee. Ansoumana Ansoumana Mané tur bi moom xaw a échappé. Hmm. moom chef d'état général major des armées boobu noonu. biñ ko bi mu toogee ba xam ne kii dafa sonal mu bon waa ji daal di ko jàpp daal di ko tëj si benn île moom mooy euh, Ninu Viera hmm. jàpp ko tëj ko ci benn île toroxal ko foofu bi mu ko bàyyee. Euh, moom moo moom daal ñoom ñaar ñoom sax ñoom lañ faat ñu ngi ko faat mois de mars kii daal premier mars ki daal di ko faat le deux mars loolu ñu ngi am deux mille deux mille neuf donc ñoom ñaar dañoo mujj faat dinaa dellu si léegi léegi ci tur mm-hmm. donc euh, loolu bi mu amee euh, Guinée daal di jaxasoo daal di jaxasoo euh, mais ki nga xam ne moo Nino Vera dafa doonoon ko muus trop dafa muusoon trop daal di téye nguur gi il a fallu ñu xaar deux mille Euh, pour ñu gis ni gars yi dañ koy def attentat rey ko. Hmm. lu tax parce que gis nañ ni ki nga xam ne moom mooy euh, euh, chef d'état général des armées rayoon nañ ko ci benn attentat te ñu ngi ciblé narcotrafiquants yi la mais gisoon nañ ni dañu wax ni loxo ni ñoom ñaar mu suñu jubóo. Hmm. kooku bi mu faatoo quelques jours après moom ñu daal ko faat. mooy Batista. waaye moom mooy moom mooy. Batista waaw mooy Batista. waaye hmm. Takminawe. Batista Takminawe kooku. moom bi ñu ko faatee le premier ci lañu ñu rey euh, après euh, ki nga xam ne moom mooy Nino Vera le deux mars mm-hmm. deux mille loolu donc nekk na nag moment bu bu graaw Guinée-Bissau mm-hmm. parce que ci la gis après mu am amélioration ci ci terrain politique bi ci mm-hmm. la ñuy gis ni euh, lu bëri day changé tuuti dina changement dina am tuuti démocratie dina respirer ba ñu gis récemment Euh, la chute euh, du, du, grand parti qui était AGC mhm. euh, à nouveau parce que amoon na dans les années 2000 ak Kumba Yàlla mu amaat à nouveau ak coalition bi yóbbu Mballo au pouvoir mhm. alors wax nga ni euh, ñàkk préparation ak euh, peut-être euh, yeneen ak yeneen mais dañu gis ni aussi PAIGC bi nga tudd léegi si laa doon bëgg a ñëw ñoom souvent problème politique yi jógee Guinée-Bissau dañ leen ciy tudd lu baree bari mm-hmm. donc y a des problèmes aussi politique yoo xam ne mun na expliquer yenn coup d'état yi mm-hmm. waaw PAIGC nag parti africain l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert mm-hmm. boo ko xoolee xam nga Guinée Bissau dafa doonoon li nga xam ne dafa fekkee tamit parti unique boobu rek a nekkoon parti ci réew mi donc boo xoolee dans les fonds fin fond de la Guinée Bissau ci biir biir biir Guinée Bissau PAIGC am na fa représentation donc ba tax na saa yu tëgg élection rek même bu fekk même dans les dans les années après quatre vingt dix bi ñu defee ouverture quatre vingt onze bi ñu defee ouverture démocratique avec multipartisme gis nañu toujours PNGC moo doon gagné mais bu ko gagné toujours ay kasit ñoo fay nekk ay ñu am ndombal tànk ñoo xam ne ñu bokkuñu diine ñu xeet toujours rivalité yi day am parce que ñoom seen politique aussi dafay question ethnique bi dafay jóg parfois dafay jóg ñooñu ñoom ñoo yor réew mi ñoom ñoo yor bi ñoom ñoo yor lépp moom mooy PNGC parti boobu noonu donc ba tax na chaque fois dafay am rivalité seen biir da nga gis ki dafay nekk balance kii daal di nekk PPL kii nekk MOUJAP day am jàppalante ci biir comme bu ci moom mooy euh, diggante Simon Domingos Pereira ak ki nga xam ne moom mooy euh, euh, président Diomaye ñu koy ne José Mario Vaz hmm. ñoom ñaar amoon na rivalité lu ko waral aussi moom mooy seen forme lay wax institution bi ñu bi en place parce que boo xoolee Guinée-Bissau le premier ministre il a du pouvoir hmm. le président de la république tamit dafay am doole mais premier ministre day am doole bi nga xam ne des fois sax day dëkku kii di président de la république or boo nekkee président de la république euh, du yow yaay tànnal sa bopp kon kon ñoom demuñu ci régime présidentiel bon mun nañ xaw ma ndax dañ ko semi présidentiel lañ koy wax mais régime boobu daal euh, dafa mel ni Guinée-Bissau lañ koy gën a gis moom mooy président de la république régime présidentiel ndax président moom mooy mooy chef. Euh, mooy fal mooy tànn premier ministre. voilà mais premier ministre da koy proposer ki nga xam ne moom mooy assemblée nationale. ah d'accord. pour kooku valider kooku bu invalider mënu ci dara. Hmm. donc daanaka xiir xaaf-xaaf la ndax président am na ndombal temps premier ministre day am ndombal temps. Hmm. donc kooku bu manœuvrer au niveau de l'assemblée nationale. proposition bi ngay def mën nañ ko bañ a jël. effectivement te ba pare. déclaration comme ñoom ñu ñu koy defee fii yow boo ko defee biir assemblée nationale te nekk premier ministre bu président bi d'accordul sax bu parlement bi d'accord rek dañuy bari hmm. donc kii di Simon Domingues Pereira jamono yooyu nga xam ne rivalité institutionnelle boobu sax moo tax ba Guinée-Bissau programme yu bëri euh, José Mario Vaz bu mu ñëwee pour pouvoir mënuñu ko ndax à chaque fois day am blocage institutionnel premier ministre bi dañ koy fal assemblée hmm. président de la république du nangu donc affaire yi taxaw donc euh, bi mu ñëwee au pouvoir mooy Simon Domingues Pereira dafa liggéey ba tax na député yëpp dañu ànd ak moom presque ñëpp dañu ànd ak moom donc kii José Mario Vaz finalement dafa mujjee woon beru amuloon doole noonu moo tax moom it mënuloon am deuxième mandat parce que gisuñu lu mu liggéey jamono ñu ma nekkoon au pouvoir yi dafa xeex loolu 2014 la ba muy génn pouvoir dafa xeex premier ministre Euh, day dàq premier ministre bi du ñu d'accord ak moom et loolu tax na ba Union européenne fonds bu mu leen jagleeloon pour ñu mën a réformer li nga xam ne mooy service de sécurité bi mm-hmm. nekk lii di armée bi nekk police parce que Guinée Bissau ngay dem sax doo xam ndax kii police wala du policier lu ñu solo day doy waaru corruption bi amoon fa doole douane bi da ngay rek ci da ngay ñëw laaj xaalis nga dugal yow it sa poche mu am groupe boo xam ne bu monté donc loolu taxul état taxaw ñu ne dañuy réformer li nga xam ne mooy service de sécurité secteur service de sécurité mais réforme boobu musul bu fekkee jéem nañ ut xaalis pour def musul am ndax blocage institutionnel bi booy jox xaalis koo koy jox booy viré koo koy ci dëkk bi nga xam ne tout le temps dañuy xeex xiroo ngaayoo entre institutions yi mhm. donc loolu bokk na te PAGC rek la moom moo nekk à la mooy loolu bokk na ci lu tax Guinée mënul dem ndax PAGC boobu est était devenu a mhm. léegi nag ak changement de régime bi nga xam ne am na euh, deux mille quatre-vingt-dix-neuf euh, excusez-moi deux mille dix-neuf mm-hmm. ak arrivée du pouvoir de Umaru Sissoco Embaló loolu mën na tax ba dine euh, yeneen parti politique yi fa nekk yi nga xam ne mën nañu bouleverser hiérarchie bi ndax bu ñu xoolee ki ki indi modem G15 bi nga xam ne moo indi Umaru Sissoco Embaló au pouvoir ce n'est rien d'autre que benn coalition ak ay frustré ak quinze députés yi nga xam ne mhm. ils étaient de de PAIGC la ñu bokkoon mhm. waaye d'accord ñu ak doxalin ñu daal di beru mhm. ñoo ñu indi mbaalo pour pouvoir donc yeneen parti politique yi nekk ci réew mi mën nañ espérer ni mën nañ toog pouvoir et bu ñu continuer def noonu PAIGC li nga xam ne moo nekkoon parti unique mën na faible fragiliser wu mu éclater wu comme ça mu amaat benn configuration ou reconfiguration politique hmm. au niveau mais ba tey PAIGC mi ngi fay am doole ndax ñi ngi fàttaliku ambaalo bi ñu koy doog a fal xaw nañ ko indil tuuti jafe-jafe ndax te assemblée ba certainement am na ñu fa tànk ba léegi lan moo leen may boobu doole est-ce que li liñ fi nekkoon parti unique ba tey seeni racine euh, dëgër euh, la wala yeneen parti yi xëy na ñoo amul taxawaay bi war non non non loolu euh, am nañ doole dañoo am doole ba tey ndax mbaalo bi ñu koy fal. Mm. xam nga présidentiel lañ ko fale. waaw waaye bi ñu xoolee biir assemblée nationale. Mm. mbaalo seen coalition bi yeneen parti ñoo leen doole dafa am yeneen parti leen doole ndax ñu am assez de députés mun a faire face à PAIGC. looloo tax fi nga xam ne moom mooy ci parlement bi mbaalo ëpp doole. Mm. li xam ne mooy PAIGC. ba tax na ñooñu dañu doon bañ bi bañ di bañ mais tax lu taxoon sax ñu jéem a bañ mooy ñoom dañu doon gis ni fii élection yi c'était waaw ñu dañ ñu ŋàññi surtout investiture u mbaalo waaw di wax ni c'était pas légal waaw mënuñu si woon dara ndax loolu beneen coalition moo ko loolu politique la xeexu politique la beneen coalition moom moo ko moom moo ko investir mhm. donc ñoom ça n'avait seen cela n'a rien à voir avec ñoom seen i seen seen seen parti politique Mbalo coalition Modem G15 ñoom ñoo ko doole te ñu fa jóge foofu c'est des c'est des casiers aussi de PNGC ñu gisul seen bopp ci programme ou projet ou intention ki nga xam ne Simon Devangues Pereira la tamit. ñoom mm. nag gars dañ koy dut baram tuuma ne moom euh, tamit dafay xaw a favoriser ñi nga xam ne ñooy xeetam moom njaago la tamit donc euh, euh, loolu taxoon na ba gars yi jàppale Mballo. Mm. Mballo daal di ñëw mais dama gis ni boo bo boo xoolee ci biir ñu sonal tuuti Mballo mooy il garde toujours. Euh, il gardait toujours la majorité il mu am quelques partis yu balancé wu seen mbaadu. Mm. yoo xam ne amoon na ñetti député ñeenti député ñu daal di créer benn équilibre et que mën a di un peu tranquillement mm. alors bu passé problème politique ak euh, peut-être impréparation bi ñuy jël indépendance est-ce que tamit mbirum xeet nekkul euh, luy miine Guinée-Bissau lu leen di indil jafe-jafe souvent. waaw Guinée-Bissau nag dafa doon dëkk bu bëri xeet. Hmm. Guinée Bissau di nga fa fekk Joola di nga fa fekk Manjaak Mankaañ Pepel Balante dañu bëri bëri xeet euh, loolu tamit boo xoolee instabilité yi ñu remarqué yëpp biir Guinée Bissau te yëpp nga lépp instabilité yooyu nga xam ne euh, ñii di généraux yi ñoo koy dégg généraux yooyu saa yoo ñëwee au pouvoir boo toogee bu ñu la joxee maanaam chef d'état-major général des armées da ngay dem si biir dëkk daal di indi ay jeunes solo leen tenue ndax foofu recrutement amul dañuy ñëw rek ah oui suñu la tenue non ñu si bëri dañ leen dugal par complaisance ci biir armée bi. da ngay dem rek jëli jox leen tenue ñu sol. na a vu gis nañ ay jigéen yoo xam ne dañuy xëy rek nekk ni ñu jël leen sax rek jox leen tenue ne leen doyen nga loolu genre genre donc euh, ah, nekkul dëkk bi nga xam ne dañ ko réglementé rigueur nii la jox. Mm. ça c'est une armée mexicaine bu ñu dañu dañuy tirer un peu partout. on a vu les images de l'autre jour ci euh, tentative de coup d'État ba ay civil sax ay civil donc on tire comme on peut voilà donc euh, boo xoolee situation bi mel noonu parfois c'est l'indiscipline de l'armée moo koy créé ndax hmm. dafa doon armée bi nga xam da indi sa bopp jox ko tax mu am salaire kooku noonu am salaire bu fekkee da dem ba ñu ba ba ñu lay ndax ñoom it vrai boo nekkee général da ngay nekk général à vie ñoom boo nekk ah général bi ñu bien sûr général ñoom général la bii lañ ko soo ko génnee sax ci biir. Euh, euh, dispositif militaire bi. voilà dafay di nekk général ak général la waaw. d'accord donc day am influence. ci biir possibilité manipuler ay ay nitam yi fa nekk. bien sûr moo tax ñu am salaire. moom moo tax ñuy fayeeku te salaire yi loolu bokkoon na ci réforme bi ma doon wax sànq. Mhm. dañoo waxoon ni il faut ñu imposer force de l'ordre yi ñu am ay compte en banque ñu leen di fay mais da ngay toog nga ñëw toog. même étudiants yi ñun defar ñu ko bi Sénégal. billetage da nga ñëw toog ñu compter compter billetage tak tak la nga dem seetal. donc loolu dafay favoriser corruption. Mm-hmm. te ba pare ñi nga xam ne yaa yow yaay seen yàlla. ñu la fa génnee boo joxoon baaraam la ñuy def. c'est des guerriers c'est des guerriers les Guinéens pourtant am na affaire bu am solo boo xam ne y a des intellectuels yu defoon proposition boobu avec mm-hmm. des études mooy Guinée-Bissau pourtant mënoon na ak situation bi nga xam ne sous région ba nga koy ba nga koy. mu ngi mu ngi dal su région mooy terrorisme bi ak ak euh, narcotrafic bi ak violence yi ñu gis hmm. xeetu yenn violence pourtant Guinée Bissau mënoon na nekk euh, réew mi nga xam ne dafay am armée bu forte nga xam ne dina mën a def face parce que ils ont des guerriers soo jëlee ethnie nga xam ne c'est des balances hmm. c'est de vrais combattants des gens courageux hmm. c'est des gens solides ñooñu ils peuvent faire l'ossature d'une armée c'est vrai que war ñu xool ethnie mais mm-hmm. ils sont ils sont nombreux mm-hmm. ils sont nombreux et pour la plupart malheureusement du ñu nangu dem école te boo demulee école aussi lu ndaw mënuloo ko xamuloo ko c'est difficile aussi nga mën a manipuler donc ci réforme yi ñu ngi wax au moins nit ki sax na mën a bind balaa mu ñëw ci armée mais loolu musul nekk problème de façon que du ñu xam lan mooy militaire yow da ngay bu amee benn contestation rek vous tirez comme vous voulez vous tirez des civils et puis euh, vous répondez même su fekkee xamuloo ndax kii c'est plus le le général kii mm. mooy général il faut respecter hiérarchie militaire yow yow loolu sa yoon new yow looy def daal mooy kii moo la fi indi moom ngay déglu moom ngay tiré donc affaire de partisan yooyu moom moo tax instabilité bi dana yàgg mm. ndax euh, ki nga xam ne mooy Bouba Natioune moom ñu ngi am toujours lo ci biir armée bi lu mm-hmm. ñu dañ koy influence am fa mm-hmm. te eh, damay wax beneen anecdote sax même bu fekkee <clears throat> boo ñëwee Guinée boo demee Guinée Bissau saa yu ñëwee toog sax si yenn bërëb bi da ngay gis gars yi jóg daw daal di ko bàyyi de dañoo ñu ko jàppee yóbbu ko États-Unis mhm. eh, ñi nga xam ne moom mooy eh, américains yi dañoo branché ay ay ay film ay caméra <laughs> hmm. yaramam ba tax na boo toogee soo waxee rek da lay enregistré joxe ko parce que hmm. dafa maanaam dafa dafa signé benn benn pacte américain pour ñu libéré comme ça moom mu révélé ñëpp ñi nga xam ne. ñoo nekk ci affaire yi affaire yi Guinée alors euh, bu ma la déggee kon gis Bissau moom amul benn organisation genre réew la rek mais en réalité c'est une armée mexicaine où peut-être tout le monde est chef euh, lan moo tax 1974 ba ñu amee seen indépendance ba léegi jéemu ñu ko def un état normal ba xam ne ñii ñooy armée bi nii la ñuy duggee ci armée lii mooy police nii la ñuy nekkee policier pourquoi euh, peut-être loolu ba léegi mm. mënul sotti 74 quand même yàgg na Mhm. moom mooy euh, euh, désorganisation bi ma bi ñuy jëlee seen indépendance ni ko jële parce que kii da leen di wax ni euh, kii nga xam ne mooy amical Cabral daf leen di dafa doon dafa doon faral di leen wax ni moom sa bopp neewul nga am hymne national mhm. wala nga am devise mhm. loolu neewul moom sa bopp moom sa bopp mooy nga am sa armée mën a def tubaab der bu weex du sonal mais tamit der bu ñuul war la tukkal en fait dafa diggee dafa dugal seen bopp esprit ba esprit révolutionnaire mm-hmm. esprit révolution révolutionnaire boobu dañuy dem ba ñuy jël seen indépendance laave wu ñu aussi gars ñu ne ñu xamal leen ni on n'est plus dans cette dynamique ou cette vision politique bi nga xam ne moom mooy da ngeen di bañ rek képp ku mu mun ci doon mm-hmm. euh, wala sax nekk duñu ci dynamique boo xam ne ñi nga xam ne ñoo yor xaalis bi ñoom rek ñoom ñoom ngeen war a déglu mhm. dañu nekk ci état <clears throat> ku ñu dénk ndombal tànk moom nga ne donc travail boobu daal gis naa ne euh, gars yi def ñu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi fa jot a jaar ñëpp euh, amul kenn ku ci jéem a entamé au moins benn organisation boo xam ne dina tax Guinée Bissau nekk réew mu normal travail boobu mësuñu ko tàmbale mësuñu ko def mësuñu ko xëy na ñu ngi koy xalaat waaye gis naa ne mësuñu ko essayé def parce que ñu ngi toujours si urgence Guinée Bissau dëkk boo xam ne ci urgence lépp la lépp urgence secteur boo dem urgence. tax na yow seen dara taxawul maanaam désorganisation bi fépp la. loolu moo fa nekk donc euh, loolu tax na sax dinaa la waxaat beneen mbir ba nga xam ne tax na ba euh, yàggul sax ay ay weer ca gannaaw. Mhm. loolu deux mille euh, gis nañ ni l'armée ay at ci ginnaaw ay weer ci ginnaaw lay wax gis nañ ni Sénégal. Mhm. daa dina fa yóbbu douane bi mu xaw a tàggat tuuti seen douane. c'est hmm. que dañu gis ni dañuy perte ressources yu bëri. xam nga dafa am corridor euh, Banjul Bissau. Mhm. nga xam ne marchandise bu bëri. Mhm. day jóge Banjul jaar Ziguinchor daal di dugg Guinée Bissau. Mhm. chaque jour da ngay gis boo ñëwee ci si euh, li ñuy wax euh, cinquante quatre mètres nekk route de la CEDEAO da ngay gis camion yi di faral yooyu yëpp dañ dem Bissau mais ñooñu bu ñu ci poste poste frontière yi lan la ñuy def. dañuy verser de l'argent il y la corruption extrême mm. il beaucoup d'argent ñuy verser loolu lu dugg ci caisse état waaw poche gars yi la ci poche lay dem loolu tax na lan la ñuy mën a régler yenn problème hmm. duñ ko mën a régler et bi Sénégal demet at yi mu weer yee passé tàggat seen douanier gis nañ ni seen i kees xaw na jóg tuuti hmm. ñu gis ni donc amoon na xaalis yu bëri ñoom dañ ko doon perte ndax si ay ay ay ay affaire gerte ay ay ay somme yi ñàkk a fay la lañ leen di ay somme yu ñàkk fayda donc désorganisation boobu nag dafa dem eh, dafa profond dafa profond trop ba tax na euh, retard bi ngay gis nii ak cycle de violence à répétition bi mm-hmm. ak euh, manque de respect des institutions bi euh, loolu moo ko indi mm-hmm. parce que école bi sax boo ko xoolee aussi solidul noonu ils sont toujours en grève mm-hmm. enseignants yi élèves yi et donc instabilité moom mu ngi fa te Umaro Sissoco Embaló nga xam ne moo fa nekk tey ñii ñaa ngi koy joxoñ baaraam tuuma ne newul di liggéey. Hmm. newul di liggéey pour dire la vérité. gaa yaa ngi koy wax di ne kii gisuñu lu mu fi def da ngay dugg Bissau nga jéem a tapte dañ la ne kii même benn lampe sax samp ko. ah léegi nag kii même benn lampe sa samp ko à part avenue bu mu jël di ko tuddee xaw ma parce que ñun tamit aussi contre ñun ñu hmm. gis ne à chaque fois dañuy xaw a kii boo waxee Sénégal ya ah, Sénégalais yow donc dañuy ne yéen daal seen président bi moom mooy nax suñu président hmm. donc genre wax yooyu da nga koy faral di dégg booy waxtaan ak guinéen ordinaire hmm. donc euh, loolu problème la aussi ñu nag euh, suñu suñu suñu voisin yi chaque fois dañuy yaakaar ni suñu président mooy noot seen président loolu it si Gambie tamit boo demee loolu la fa. d'accord te pourtant Sénégal peut-être dafay taxaw taxaw dimbale parce que même vaccin yi gis nañu ne euh, président Macky jël na yenn yi may leen donc on peut comprendre que ni dañu am aussi euh, ay problème euh, si wàllu santé et tout euh, mais tey dans boobu ñu ñu jàppal wala peut gis-gis boobu ñuy am si Sénégal est-ce que mu ñu ubbi une parenthèse munul nekk peut-être jafe-jafe ndax ku nekk xam na ne coowal MFDC crise Casamance hmm. bi kenn du ko tudd te tujoo ci Guinée Bissau wala bi parce que ñu bëri dañuy daw si daw fippu yi euh, way fippu yi plutôt dem dugg foofu daw laa ko Guinée Bissau est-ce que tamit foofu tiitaange mënu fa am euh, par rapport ak instabilité bi ak peut-être gis-gis bi ñu am si Sénégal. waaw bu fekkee euh, problème mu instabilité bi amoo en ak lay wax rébellion bi fi am. Mhm. Eh, boo ko xoolee c'est vrai Guinée-Bissau comme Gambie ay base arrière la woon ay jamono. Mhm. Guinée-Bissau wax naa ko sant ba wax ni problème Ansoumana Mané ak armes yi nga xam ni gisoon nañ ko ci Macky bi mu ñu laam-laamee ni Guinée-Bissau la jógee. Mhm. loolu taxoon na ba ñoom ñaar moom ak président Nino Vieira di nekk nekk Bernardo João Vieira ñu am affrontement ba mu daaneel mu quatre-vingt-dix-sept mhm. loolu loolu loolu lu ab la. bu ñu jëlee tamit euh, Gambie aussi présence justement extrapolée Yaya Jammeh ak république bi loolu dañ ko doon gis ko faral armée iranienne yi ñu fàttali ko armée iranienne sonne duggoon na tamit ci biir Mali donc pour ma dellu ci côté Guinée Bissau loolu base arrière la te parce que Guinéens dañu gis ni aussi ils sont redevables à la Casamance parce que bul fàtte ni euh, ci guerre d'indépendance bi bi nga xam ne guerre d'indépendance amoon nañ ko ak euh, ñoom Portugal Guinée ak Portugal guinéen yi Casamance seen base donc dañ doon dugg bu fàtte portugais da leen doon poursuivre mais mu am ay jamono ki nga xam ne mooy Émile Badiane dem euh, waxtaan ak colon portugais yi ndax ñu bàyyi di taxaw fee di pilonné euh, certains villages de Casamance qu'on suppose que dafay abriter ay ay ay ay rebelles comme wala ay révolutionnaires du São mm. gin donc euh, loolu lu am la te amee école bi nga xam ne tey moom Amical Cabral lañ ko tuddee nekk un collège abrité na aussi euh, abrité na aussi des réfugiés du Guinée hmm. pendant cette guerre là hmm. donc ñu nag ñoom boo gisee tamit ñu dem ba tey affaire yi euh, xaw a ñàng ba Abdou Diouf en quatre vingt dix huit mu daal di intervenir biir guinée hmm. euh, bu ñu amee coup d'état Nino Viera ci affaire armes yooyu c'était pour régler euh, tuer le germe dans l'œuf parce euh, qu'on supposait que Gabou dañu doon daw di dugg euh, di bissau def lu ñuy def dellu si ñu attaqué Casamance dellu avec la complaisance des des Bissau-Guinéens. Mm-hmm. loolu bi ñu fa demee aussi euh, c' était un peu dur euh, un affrontement yi métti la naa yu des pertes comme ñoom it aussi le pays était dévasté. Mm-hmm. donc loolu tamit dafa des dafa des entre des pays parce que Guinée dañuy gis ne dañuy wax yéen lu ngeen di def suñu dëkk pourquoi ngeen yónni ay soldats. pour ñëw régler problème ci suñu biir dëkk loolu seen yoon nekk parce que dañuy gis ne ñun dañu bëgg a régner en maître euh, ci sous région te aussi c'est de bonne guerre réew boo demee ba nga solide dangay mën a jàpp euh, yeneen réew yi nga xam ne ñu la wër boo leen ëppee doole nga xool noonu ñu ñuy utiliser te ñun aussi ça va de notre intérêt mm-hmm. qu'on met la main sur euh, la Guinée-Bissau pour mën a stabiliser nga xam ne moom mooy Casamance tey ki fa nekk déggoo nag président moo tax côté boobu front yi fa nekk UNDP amuñu doole. Hmm. amuñu doole donc euh, c' est de bonne guerre. loolu newul loo xam ne c' est méchant hmm. dëkk bu ci nekk da ngay xool sa intérêt. d'accord nga jéem koo ajusté mais tamit am na point bu am solo. Hmm. boo xam ne Guinéens yi mënuñu ko digérer ba tey. mooy lan mooy la question du pétrole. parce que foofu zone frontière bi euh, ci biir ndox mi am na porte bi nga xam ne dafa am pétrole. yàgg na du tey. te ba pare guinéen yi ñoom dañu yaakaar ni ci partage parce que dem nañ ah ba pour pour euh, dem nañ pour justice euh, ba justice internationale pour mm. trancher li nga xam ne mooy justice boobu Sénégal daal di ci am ndam mais taxul ab Abdou Diouf defoon na leen dix pour cent euh, Wade jox leen négocier ñoo ne leen léegi dinaa leen jox quinze pour cent mm. revenu Macky Sall bu ñëwee yaakaar naa da ko yokk ba vingt pour cent mm. mais ba tey Guinéens sont pas satisfaits parce que lu indi loolu surtout mooy dañ lay wax ni yow Sénégal vous êtes injuste parce que vous avez voulu partager da ngeen nangu séddoo si seen pétrole bi ngeen am ak Mauritanie ba pare ngeen ñëw ñun ñu yàgg découvrir pétrole ngeen ne yeen vingt pour cent il faut que l'on revoie la négociation loolu tax mois yële passé euh, diggante euh, président bi ak euh, mooy bu ma président bi moom mooy Oumaro Sissoko Embaló effectivement que premier ministre bi euh, xaw nañ xaw nañ attente parce que dañuy wax ni am na document yu ñoom moom mu signé ko sans premier ministre gis ko hmm. euh, loolu nekk na coow bi nga xam ne amoon na mais dañ ko étouffé de toute façon daal loolu bokk na si kon foofu la ñuy waxee ne Macky dafay nax ambaaloo loolu ci la bokk waaw loolu ci la bokk hmm. ñoom gisee nañ ko noonu hmm. euh, que Macky Sall dafay naxe mbaalo te ba pare Macky Sall justul ndax lu mu séddalee pétrole bi ak Mauritanie bo pare ñoom mënul dem lu tax duñ def ku nekk am cinquante cinquante hmm. donc loolu coow la débat la Guinée Bissau mhm. boo laajtee xëy na suñu autorité ñoom dinañ la wax fan lañ toll ci négociation négociation yi alors bu weesoo pétrole bi euh, Guinée Bissau euh, donte dëkk bu tey néew doole la ci wàllu ko mais ñàkkul ay ressource euh, noix de cajou par exemple 60 pour cent lay représenté ci ci seen ay revenus pratiquement si ñi ko ëpp ci àdduna bi si la ñu bokk ay jën aussi am nañu ko mais est-ce que du problème gestion réew mi lañu am ndaxte bu ñu xoolee li ñuy am am yëpp si ressource ak li mu leen mun a indil euh, seen àll bi ñu am ñu munoon ko exploité ak euh, yeneen mbir yu bari yoo xam ne munoon na leen suqali euh, on se pose des question est-ce que problème gestion lañ am wala lan moo tax ba léegi xëy na mënuñu gis ñoom seen bopp si li nga xam ne am nañu ko si réew mi. waaw yow wax nga loo am solo moom mooy noix d'acajou bi ak géej gis nga noix d'acajou kooku source économique Guinée-Bissau la. Mhm. Guinée-Bissau c'est ñooy euh, troisième producteur mondial. bien sûr ñooy troisième producteur euh, mondial d'Afrique plutôt sixième mondial. waaw biir hmm. hmm, hmm, ah. Afrique troisième waaw ah, sixième mondial boo boo xoolee Guinée-Bissau am na noix d'acajou yu bëri. am na ressource acajou bu bëri ba ñoom sax du ñu liggéey tamit c'est loolu mooy problème bi Guinée ay jàmbaar lañ mais lu ñuy liggéey dafa néew lu ñuy compter lu bëri ci noix d'acajou ku ci nekk da ngay am tool noix d'acajou soo ko jaayee nga dem jënd ceeb teg ko toog léegi lu si topp après mooy naan sàngara mm. donc loolu te pourtant économie boobu noonu noix d'acajou boobu noonu c'est pas bien structuré parce que parfois da ngay ñëw nga gis prix bi day faible lu ñu koy jaayee dañ koy bazar mm-hmm. dafay mel ni état taxaw ci taxaw bi war ba tax ni producteurs yi dinañ si am gis si seen bopp am ci alal lu bëri te pourtant alal la fa ne mm-hmm. ndax indiens yi dañuy dem di fa installé wu mais ak situation de crise à répétition yi mhm. dañuy ñëw toog Casamance Ziguinchor di jënd ndaamaraas bi mhm. gars yi di parce que dem nañ ba dañu tëj aussi frontière pour mhm. bañ ndaamaraas boobu ñëw dugg fële parce que tamit am na tuuti ndaamaraas am na tuuti ndaamaraas bañal ñëw euh, bénéficier wu euh, dugg carrément jaay à vil prix daaneel daal prix bi fi loolu gars yi daal frontière mais xam na frontière mu mënoo ko contrôler bu baax am na ay bouchon gars jaar ci àll yi. Hmm. ñoo di ko jaay des zones comme Boutoupa Tambacounda. Hmm. Euh, wala Mbac parfois et cetera et hmm. mais ressource bu am solo la te am xaalis te boo amee ndaamaraas tool bu mag jëriñ sax a ngay doon patron. parce que euh, boo ko jaay di nga régler sa yenn problème mais géej bi tamit boo xoolee tamit licence de pêche yi ñuy signé parfois ak yeneen euh, pays occidentaux yi ak manque ak ñàkk jumtukaay pour mën a contrôler seen géej loolu problème la. loolu problème yu mag la baax na sax xam nga suñu mool yi dañuy dem di fa napp jën mhm. waaye danañ am ay tolof tolof yu am yu metti sax parfois parfois ñu jàpp leen mhm. euh, ne leen seen licence yi baaxul wala war a woon pêcher bi filé bon loolu mën nañ ko comprendre parfois mhm. mais parfois zèle bi ñu koy defee day day boo demee Elinkine bu la mool yi di expliquer coono bu ñuy daj euh, Guinée Bissau te suñu autorités yi aussi du ñu def parfois li ci war pour ñu respecter suñu mool yi Euh, da ngay da ngay da ngay yéemu da ngay da ñoom nag amuñu matériel parce que bateau yu mag yi dañuy ñëw des fois pêche romb mhm. ñu leen dañoo koo xam ne amul gaal bu baax naka lañu mën a demee bi jéem a protéger ay waameem marine marine bi war def liggéey boobu te ñoom euh, ils sont plus préoccupés par nekk ci wala trafic de drogue bi nga xam ne da leen di jox xaalis bu bëri gaaw gaaw gaaw donc contrôle seen yeneen idée wax naa ko sànq. Mhm. ko mënul def nga xam ne sécurité si yooyu la ndax gis nañu ay avions yi fay wàcc on a vu des avions yu fay wàcc. Mhm. di fay wàcc ay aéronefs di fa wàcc di fa di fa di ko delloo et cetera et cetera donc Guinée am na économie bu am solo. Mhm. suuf bi baax na trop ci mbay. waaye som euh, liggéey bi amuñu daal leader yi nga xam ne dina leen pousse. ñu daal di liggéey. ñu booster agriculture bi ba pare ñu structurer seen institution yi nga xam ne ñun ñu yilif li nga xam ne mooy mbay bi ndax dafay am ay ministères mais est-ce que ministères yi am nañ capacité bi am nañ compétence bi hmm. pour ay politique surtout compétence bi parce que bu hmm. njàng mi sooxee rek dafay répercuté wu ba ci kaw loolu bëri loolu dëgg la waaw ah, te te ñàkkuñu nag ñu jàngul ñàkkuñu ñu jàngul hmm. am nañ ñu jàng am na ñu jàng ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew toog. Mm. ñenn ñi ñu si bëri dañuy ay Russie dañuy jàngi. yàlla ñu ngi Guinée en Russie ko mm-hmm. am solo. wala mm-hmm. ñuy jàng wala ñenn ñu Cuba la ñuy dem ñenn Portugal. Mm-hmm. ñu ngi de plus en plus ñuy dem France. parce que ils parlent français de plus en plus. ñu jógee ci CEPA bi moom mbir mi dafa. donc boo xoolee daal am nañu compétence mais dëkk boo xam ne boo ñu toog te nga am xam-xam. xëy na dañuy xëy rek da ngay toog rek ñu daane su li nga xam ne mooy armée bi wala police wala gendarmerie en et cetera structure ñu ko euh, yeesaluñu ko. Hmm. yow dama ñëw jàng pare ñëw di di tay la sa. sa bakkan te boo moytuwul sa bakkan des ci. voilà loolu nag moo tax. Euh, gaa yu bëri dañuy préférer dem liggéey ci institution internationale yi. Hmm. wala ñuy des bitim réew di jàngale. Euh, wala nekk ci yeneen activité économique bi daal di bàyyi réew mi noonu loolu problème la. ki nga xam ne moom mooy Guinée Bissau mais bu ñuy xool daal. économie économie bi comme ni nga koy waxee. Mhm. Euh, elle repose sur euh, anacarde bi. Mhm. Euh, tamit ci pêche bi mais pêche bi les Guinéens ne sont pas de grands pêcheurs. Mhm. donc ñi di bay ay ñi di ñi di ñi ay sénégalais lañ wala ay bateau tubaab yu ñëw sànni seen mbaal sàcc jër bi. te puisque yow mënoo contrôler si géej dinañ ko sàcc dem wala soit nga ñëw signer benn contrat ak ñoom nga xam ñoom mooy waa Union européenne bi bidon. ñu daal di exploiter sa jën comme ni ñu ko bëggee ba pare dem te doo ko mën a contrôler ndax amoo jumtukaay. Mhm. loolu moo tax tamit euh, dafa am paay côté boobu ba tax dafay répercuté tamit euh, ci ci yenn réew mi si seen biir. Mhm. seen àll bi tamit am na doole ndax bant bi tey dafa am enjeu problème gestion daal. Mhm. léegi aussi moom lañu mun a tudd si yooyu ressources. waaw euh, c'est vrai am na forêt waaye bant nag euh, taxu foo taxu ko kii bu baax comme ni ñu koy gisee biir Casamance euh, comme ni ñuy defee coupe de bois bi hmm. donc loolu amul noonu doole bu baax xam nga dama la wax sànq ne dëkk bi nga xam ne la gars yi li ñu liggéey noonu hmm. bëriwul ay menuisier comme ni ñu koy gisee biir Sénégal hmm. donc ba tax na ñoom bant yi xëy na bu ñu koy dagg pour defar këriñ activité boobu daal. Mhm. Euh, moo gën a bëri dàggante bi defar kër yi ñëw jaayee ko biir Sénégal te xam nga booy dugg ak yooyu biir Sénégal eaux et forêt da lay donc day li gën a ñu jël mat togg ndax euh, ñu jéem a ñoo xam ne xaw xaw nañ am alal ñoom mën nañ toggee gaz ak yeneen i mbir mais seen àll bi daal am na ressource bu am solo. Mhm. suuf si naat na. te am na aussi des ressources naturelles gars ñu koy fàtte. Mhm. parce que am nañ zircon. Guinée am nañ zircon boo ko xoolee. dañ koy xayma dañuy wax ni daal euh, boo jëlee ñaar franc code bi ABN dafa parcourir dem ba Guinée Bissau mhm. am na mais toujours est-il que parfois contrat yi ñuy signé euh, et contrat yoo xam ne c'est en leur défaveur donc euh, ñoom duñ si am noonu ndax comme ni ma ko waxee toujours rek mhm. mooy organisation institutionnelle boo amul institution yu forte boo amul réew bi nga xam ne gars yi am nañ compétence bi toujours lépp li ngay def rek gars yi dañ la signé donc euh, loolu la mais Guinée dëkk bi nga xam ne dix-huit millions d'habitants la bëriwuñu mhm. tey te ba pare yaatu mais bu amee tey leader yu baax ñu dëgër gëm seen bopp mhm. loolu nañ yaakaar naa mën nañu booster Guinée euh, ci fukki at yu ñëw mhm. ndax lan la mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo defoon guerre d'indépendance tey ñu si bëri tamit Euh, mag hmm. nañu magal nañu ñenn ñu jël nañ aduna c'est ñu des am toujours influence hmm. mais travail de fond la travail la donc juste juste jéem a xool ñooñu dajeeg ñoom xool noo leen liggéey isolé leen hmm. ngeen refondre ngeen reconstruire euh, beneen Guinée si yeneen base ci kaw ñoom ñii di ko tabax nga xam ne ñoo njiit yi ñu jub parce que est-ce que yomb fa doon bëgg ñëw de est-ce que ce que cycle bi Guinée nekk dina si gaaw a génn Embalo tey par exemple ñi ko fexeloon ni mun nañu ñëwaat à tout moment parce que am na fii tentative de coup d'état yoo xam ne réussirul mais taxul gars yi bàyyi dañoo pousse pousse comme 99 ak 2000 euh, dañoo essayer essayer ba keroog muy aboutir donc est-ce que cycle bi Guinée yaakaar nga mu gaaw si génn sincèrement. ah mën na génn mën na génn bu doon liggéey nañ ko mais dafa laaj liggéey. Hmm. c'est vrai ñi fexeel mbaaw mbaalu euh, barki démb ñu ngi fa. Hmm. que xam ne xam plaque tournante de drogue la te ne moom bu mu jëlee nguur gi dafa wax ni dafay xeex loolu lay xeex corruption moom sax wax na ne décision yi mu jël xam na ne moo tax ñu song ko waaw nee na décision yi moo tax ñu song ko man moom boo demee ba wax loolu daanaka ñoo xam ne si na ñoom ñu ngi ci biir mbir mi mm. mais lan mooy lan moo tax moom baalu parce que tamit question boobu laay laaj souvent sama bopp. na mm. ma la toujours Mballo xam na ni euh, euh, Antonio Ndiaye nga xam ne mooy chef d'état-major général des armées mhm. te moom mu daal di ko mu daal di euh, tak mu daal di di ko nangu ndomba tànk yi ñu ko joxol mhm. dàq ko ci armée bi kooku dem retraite forcée kooku de nekk ci toolam pële di bay jàpp njàmburam mhm. mais kooku am na toujours influence ci armée bi effectivement te américain yi koy wut lu tax Mballo du ko jox américain Hmm. lu tax duñ ko duñ ko jox américain ñu jàpp ko comme ça mu débarrassé wu ci. loolu tamit question bi may posé alors que xam nañ ni il est au cœur du narcotrafic. Hmm. mu ngi ci biir cocaïne te mu ngi toog ci village bu mu nekk foofu Guinée-Bissau moom xam na fa américain yi lancé nañ mandat d'arrêt mettre nañ sa tête à ba tey moom newul di di di di si jóg pour jéem a problème boobu. keneen ki ci gën a in eh, ki ci gën a dëgër bopp mooy Bouba Nathi kooku tamit ñëpp xam ne ni ci mbir mi dàq nañ ko mais yow mbiru drogue lu jox la boo ci duggee rek du tuuti bu fekkee bàyyi nga mais pour nga bay ko carrément day métti mm-hmm. ñooñu saa yu leen neexee dañ koy daane mm-hmm. bi mu xamee loolu mu nekk président de la république am pexe war na liggéey liggéey bi nga xam ne day mettre en place parce que moom it en général la mm-hmm. mu xool nu muy génnee ñooñu ci réew wala nu muy régler problème bi nga xam ne da leen di carrément dootul am yenn problème Euh, mën a gouverner tranquillement léegi nag loolu mënuloo changer société te ba pare école bi defaroo ko. Mhm. non man foofu doon bëgg a ñëw est-ce que moom sax amul woon yeneen priorité parce que balaa ngay xeex euh, euh, trafic war nga quand même mettre des institutions fortes nga def police bu bu taxaw nga def douane bu taxaw def gendarmerie bu taxaw organiser sa armée ba pare ba nga am foo sukkandiku pour nga mun a xeex trafic parce que euh, trafic bi moom kese munu ko xeex et tant qu'il y a ces généraux là dans l'arme avec leur influence mënu ko xeex donc est-ce que moom juumul peut-être si si doxalinam waroon na attaquer wu si yeneen i priorité après soo nga ñëw ci lii fekk mu am yeneen force waaw li nga wax dëgg la war na mën a tàmbale ci institution yi mais xam nga wax naa la ma ne la fii ak fukki at Hmm. wala fukk ak juróom at sax mënut a changer rapidement visage bi dee. donc pour man changement buy ñëw. Hmm. dafa commencer à la base. day yàgg mooy citoyen citoyen yi ndaw yi ñëw. waaw a changer seen mooy éducation bi hmm. ci liggéey. mais alal da nga koy am ci liggéey. mais doo am alal ci trafic de drogue. doo am alal ci nangu yëpp jàmbur jaay ko doole wala ci càcc bi. parce que càcc dafa bëri Guinée-Bissau tamit da ngay yar sa rab am say nag da nga leen di dugal sa biir kër da ngay gis lépp loo am comme ganaar sax da ngay fanaanoo moom hmm? ndax ndax càcc bee ba bëri donc loolu pour nga changer ko mentalité yi ndaw yi ngay changer mu noxee rek ñi nga xam ne ils sont atteints déjà ñoo xam ne dañu polluer seen esprit ñu benn patriotisme nga bëgg leen changer du tax nga jël sa force yëpp def ko foofu aussi kooku c'est à la base nga koy hmm. donc il faut de bonnes écoles il faut bi mën a sentir sa leadership parce que moom waxoon na ko mu ngi déglu nee na moom daal balaa mu fa jóge dina tabax hôpital bu mucc ay Guinée Bissau hmm. ndax Guinée Bissau yëpp Casamance la ñuy fajoo hmm. Sénégal la ñuy dëkk bi nga xam ne amul centre psychiatrique mooy Guinée Bissau ñoom ñëpp am xeeb feebar xel da ñëw Casamance ngay fajoo donc loolu ay problème la nga xam ne daf ko waroon jël à bras le corps mu mu régler ko hmm. mooy infrastructure euh, infrastructure sociale yi mais tamit problème mu école bi dama ci insister ak université loolu lu am solo la daf ci war pour man insister bâtir li nga xam ne moom mooy tax mu reconstruire beneen Guinée ndax Guinée bi actuelle mënul continuer nii. Mhm. te mu ci ay nen la toog. Mhm. voyage am bëri na loolu. gis nañ syndrome coup d'état bi nga xam ne mooy daw Afrique de l'Ouest. Mhm. kooku te lu ci gën a grave mooy CEDEAO nekk du fa nga xam ne ñoo ko doon protéger ak ki nga xam ne moom la fa wutu ñoom o ko doon loolu yëpp euh, génne nañ leen fa il va falloir mu mu def avec lu mu am mm-hmm. mais pour mu def lu mu ak lu mu am en tant que ancien général mm-hmm. war na normalement euh, mën a def face ah ñi nga xam ni ñoo koy fexeel parce que xam na armée bi nu mu bindoo nu muy mm-hmm. fonctionner ñu ko bett bi ñu ko bettee daal dina ma jaaxal trop en tant que ancien général encore kon peut-être di tax coup d'état bi réussirul keroog euh, loolu bokk na ci waaw li tax coup d'état ndax dafa am jàmbaarte dama yaakaar ni gars yi ni ñu ko préparé daal Euh, moom moo xaw a doy waar euh, dafa dafa échoué parce que seen bu ñu teg ak fu ñu bëggoon dem ba génnee gars yi. Hmm. dafa làqu dafa xaw a dafa neexut a dem. boo xamee Guinée foofu dafa xaw a xat. Hmm. donc euh, ba tax na gars yi mënuñu woon yéen parce que gars yi de loin lañ doon def di échange de tir. Hmm. mais bu fekkoon bu bu continuer ci situation bi ak voyage yu bëri yi nga xam ne mu ngi koy def. ak leadership bi nga xam ne bëgg na ko jouer entre moom CEDEAO laay wax. CEDEAO mhm. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, junte yi ñu gis ne ñu ngi judd un peu partout muy Mali muy euh, Burkina Faso ak Guinée Conakry mhm. parce que gis nañ ni dernière rencontre CEDEAO par vidéo vidéoconférence mhm. euh, dafa wax ni moom day dina del dina dina daal travail de façon que dina nekk intermédiaire maanaam médiateur entre CEDEAO ak junte militaire donc liggéey boobu est-ce que tey ak situation bi nga xam ne Guinée Bissau mu ngi koy dund. Hmm. est que dina ko continuer mën a def parce que bëgg na jël un peu am un peu d'influence. Hmm. Euh, ci biir sous-région bi est que dina ko mën a def vu que bu ñu xoolee hmm. nga xam ne ñoo nekk di déglu moom bëggoon na jouer rôle mais est dina ko mën a def. du ko tal <laughs> waaw ndax am na lu ko doy. donc euh, il suffit que mu déconcentré wu tuuti gars yi dal ci kawam. voilà donc il va falloir mu ressaisir pour man. mu liggéey parce que tamit bu ñu la falee da ngay liggéey. waaw da ngay liggéey wax ji nga wàññi ko populisme bi nga wàññi ko nga liggéey euh, donc bu liggéeyee foofu Guinée li ñuy laaj bëriwul. Mhm. Guinée day doylu Guinéens mhm. sont pas trop exigeants comme sénégalais. d'accord donc yenn détail rek bu defar quelque tali. Mhm. li nga xam ne mooy santé bi surtout. nga améliorer ko parce priorité. moo tax ma ne est-ce amul woon yeneen priorité parce que foo xam ne nit ñi mënuñu faju amuñu courant mënuñu dund dund bu baax. Euh, mm. ñooñu boo ñëwee di leen wax ay problème mu drogue te mu nekk presque un cancer. dafay mm. doy waar am na yeneen yoo war a lijjanti. day doy waar day mhm. doy waar day doy waar alors que drogue boobu c'est vrai c'est de l'argent sale mhm. mais benn ñi mooy tax ñu dund day tax si ñu dund te yow alternative mhm. amul alternative leneen donc euh, loolu mooy problème réel mbaalu ñu ngi koy xaar ñu ngi koy seetaan depuis deux mille dix neuf kenn déggul benn réalisation bu mag bu mu def kenn déggu ko depuis deux mille dix neuf la ñëw dinañ wax ni teel na mais teelul deux mille dix neuf mais en deux mille donc gisuñu annoncé na fi ni si benn télé tubaab ni moom dina fi tabax hôpital bu mucc ayib ndax dafa demoon faju dëkk boobu ñu koy wax loofi bu ma dafa doon faj waaye man balaa may ci dinaa tabax hôpital bu mag bu mucc ayib gars yi ne waa ji ne ko promesse la mu ne du promesse loolu day am force mais on attend ba hmm. léegi dara lu dul dañuy gis ay tali yoo xam ne day dem rek tuddee ko diw beneen bi mu hmm. tuddee ko xaw ma beneen euh, beneen beneen beneen beneen président foofu ci biir réew mi hmm. jox xaalis euh, jabar kooku donc loolu Guinée la ñuy xaar Guinée dañu bëgg a faju mhm. Guinée yi dañu bëgg am école yu baax Guinée yi dañu am ay emploi donc loolu ak ay infrastructure mhm. pour yoo xam ne ñu xam ne ay nit dëkk ci réew mhm. parce que aussi Guinée moom ngay gis parfois ku la neex rek mun nga toog nga jaay sa sàngara donc nga nga ko réorganiser bu bëggee dëgg-dëgg am jàmm am tur bu baax aussi ci def lu gën ñi nga xam ne moom ñoom la ko wutu ñi mm-hmm. euh, ñu mën a jàpp ci loolu daal laa yaakaar ni mm-hmm. bu la war a def loolu la war a def jërëjëf euh, Jonas nañu mbégte lool euh, dalal ci émission démb ak xam nañu lu bari ci Guinée wax dëgg yàlla ndax waxtaan bi ñu ngi lay gërëm fàttali ne yow journaliste nga spécialiste des questions gambiennes et guinéennes merci merci. jërëjëf euh, Jonas Bassène kon mbokk yi li nekkoon seen émission démb tey ñu doon waxtaanee Guinée Bissau ndax coup d'état ba fa amoon keroog xam ngeen ni kon duguleet yàgg na fa am ay tentative aussi yàgg na fa am ñuy ñaan yàlla dimbale leen ndax itam seen jàmm mooy suñu jàmm réew la mu takkook ñun bu yëngoo faw dañuy am fu ñu koy yégee yàlla na yàlla taxawu leen dolli taxawu Afrique gépp euh, ñu di joxante dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat si réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi feggoo ak jaawo jàlloo ci jàppandal gi jàngeen jëf ñu yendoog jàmm